saalihiina tatanazalu rahmat ñu ngi wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu mbooleem téléspectateur bu 7TV di nuyu xalifa général Medina Baye Cheikh Mamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass di ci teg sëriñ Cheikh imam Cheikh Assane imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di ci teg suñu sëriñ tamit Cheikh Mahi Cissé mi nga xam mooy porte parole fii bi di nuyu mbooleem Muqaddam Baye di nuyu mbooleem waa umma islamique bi ci nga xam ne ci bésu bi nga xam ne mooy bésu ajuma ñu ngi ku ci nekk mu nekk di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, Cheikh Abdou Ndaw muy muhaddam euh, nekk si imaam Assane Cissé xam naa ne tey nag incha allah rabbi émission bi dañ koy def fàttaliku imaam Assane Cissé. ndax wax dëgg yàlla defoon na ko moom fa set suñu télé bi nga xam ne mooy TFM tey nag mu waree ñëw waxtaanee ko set TV incha allah rabi ñu war see fàttaliku imaam Assane Cissé ba tax nag tey moom xam naa ne xool yëpp dina tooy ndax euh, ki ñuy fàttaliku day kenn di imaam boo xam ne wax dëgg yàlla Sénégal ñëpp ràññe nañ ko si jëf ju baax si jëf ju rafet mu nekk koo xam ne international la partout dans le monde ba tax na dinañ ko waxtaanee incha allah rabi si kanam tuuti dañuy dem fee rek jox Samba mu tëjjil euh, Cheikh bi kon sëñ Samba nga tëjjil ñu ñu doog ñëw ah kon kon kon noonu noonu noonu la demee xam naa si kanam tuuti incha allah rabi Samba Samba dina tijji ak ak ak ak imaam. ñu doog a doog a ñëw kon sëñ Samba bismillah. mu mel nañoo xaw am jafe-jafe xam naa si kanam tuuti incha allah rabi di di ngeen gis sëñ Samba mu mu tijji leen léegi léegi ñu ñëw ñu ñëw ak imaam rek waxtaan ak moom. tuuti kan mooy imaam Assane Cissé. Ah, alhamdulilah rabil alamin laaj ma laaj bu neex. ci ki nga xam ne soppeeb nga ko laaj xam nga day neex ci xol mm-hmm. imaam Hasan Baay Ñas la mooy premier sëtu Baay Ñas yaayam mooy taaw Baay Ñas baayam mooy premier xalifa Baay Ñas nekk doom ci Sida Fatimatu Zahra bi taaw Baay Ñas dana yàlla yërëm ko yàlla xaaree ko àjjana di nekk itam doom ci sëriñ Aliou Sy mi nga xam ne moom mu ngi jóge woon Jooson bokk ci taale baay yi nga xam ne seen papa yi dañu àndoon a Maam laa Niass ba bàyyi oote ñoom ñoom ñu uyu ko ma mu ngi juddu le 4 février 1945 ci Medina Baye mu ngi jàngee Medina Baye ci Daaro Naar yi ñooy xalu rabbaani ñoom ñoo ko jàngal après mu jógee fa dem Mauritanie waat ba mu fa jógee après ci la dem Égypte jàngi ba mu fa paree mu yaakaar ne pare la ci yoon bu gàtt rek comme temps bi dafa xat moo tax ba mu paree Égypte ba pare ci la ko bàyyi na ko. su ma sañoon nga dem jàngi anglais parce que àdduna bi di ñëw jamono yi ngi ñëw langue anglais dañ ko war a maîtriser mu ne bàyyi ban xaalis laay demee bàyyi na ko yow demal jàngi rek li ci war man maa la koy man maa la koy defar mu ñu demee Angleterre la jàng ba am licence mu jógee fa pour dem États-Unis defi ji master am hmm. daanaka si États-Unis sax ci la mbiram yëpp feeñee ci préparation bàyyi bi nga gis li mu nga doon jàngale anglais bi hmm. pour préparer comme bàyyi dem na ci continent yi ba mu desoon Amérique fale mu am benn ki nga xam ne moo ko demal Amérique pour propager ko lislaam bi ak tarixa tijaan bi waaw loolu si gàttal daal imaam ma ngi noonu moo nekkoon imaam Medina Baye mhm. de 1982 à 19 en 2008 26 ans yi nga xam ne moom moo jiite jumaa Medina Baye ci dénkaane bu nga xam ne Baye Niass moo ko waxoon ne moom Baye bu génnee àdduna sëriñ Aliou papaay imaam Assane mooy imaam Medina Baye mooy xalifa njaboot gi waaye bu sëriñ Aliou génnee àdduna mu ne imaam mooy imaam Medina baay moo nekk imaam depuis avril 1982 ba 13 août bi muy génn àdduna 2008 fii ci Medina Baye. Mhm. ci gàttal daal bu ñu doon ramasser lu gàtt. Mhm. pour def biographie Cheikh Assane mun naa leen loolu mooy imam Assane Seck. Mhm. macha allah Cheikh Abdou bala ñooy ñëwaat si beneen question bi dañuy dem si sëñ Samba. mu mu la ñu doog a ñëw ndax waxtaan wi dama bëgg tey àdduna jëriñoo si bu baax baax baax baax moo tax ñu invité fii. sëñ Samba bismillah. la ilaha illallah la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله النبي محمد رسول الله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 Hassan Cisse Cisse Hassan Cisse Cisse Cisse wali Allah Cisse wali Allah La ha illa ha la ilaha illa Allah Ha illa Allah Muhammad ya Rasulullah يا رسول الله حبيبي طاء مقتحري حبيبي طاء مقتحري الله لا إله الله لا إله الله الله لا إله الله لا إله الله الله لا إله الله الله لا إله الله إله إلا الله محمد يا رسول الله يا رسول الله حبيبي طاء مقتاري حبيبي طاء مقتاري مرابي مولد الإنجاز مولد الإنجاز مرادي مولد الإنجاز مولد الإنياس بشعار المولد الإنياس بشعار المولد الإنياس أسيد كل سكليني كل سكليني هذا يد كل سكليني بسر تجلي الله تو بسره سريان لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلى الله الله ها إلى الله ها إلى الله محمد يا رسول الله يا رسول الله حبيبي تا مقتاري حبيبي طاء مقتاري أقسمي شو أسن سيسي شو أسن سيسي أقسمي شو أسن سيسي شو أسن سيسي نمنا نيولا شو أسن سيسي شو أسن سيسي We love you, Shawa Asan Sisi. Shawa Hassan Sise. We miss you, Shawa Hassan Sise. We love you, Shawa Hassan Sise. La la ha ila, ha la la la ha ila. Hello, Allah, ha ila, hello, ha ila, hello, Allah, ha ila, Allah, ha ila, Allah. محمد يا رسول الله يا رسول الله حبيبي تا مقتاري حبيبي تا مقتاري محمد سيد البشر سيد البشر محمد سيد الكل ألا يا يا إنياسي ألا يا ياسي إنياسي بسر سيسريان لا الله إله الله لا الله إله الله الله إله الله إله الله محمد يا رسول الله حبيبي دا مختاري macha allah jërëjëf Samba ni nga tijjee am na solo ci gis image yooyu noonu nga gis image yu rafet yooyu nga xam ne réalisateur bi Assane mi ngi koy dugal ñi ngi koy jaajëfal moom it Assane bu baax a baax a baax lan nga ñu mën a wax si sikar bi ndax imaam da ko bëggoon lool hmm, siñ mbokk taalibe la Cheikh Tidiane bu Kaduna 2006 2007 da ko daan woy saa yu imaam këram du julli ji ñoom la koy woyal nga sax yu mu ci sàmba mun taw ay kànkan laafiya di ko wane imaam buy dox mu ngi doxee comme yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaayam mooy Fatimatu Zahra mhm. Fatimatu Zahra yoon ci Yàlla Muhammad na doomu tudd Fatima papaam mooy Aliou yoon ci Yàlla Muhammad Aliou la juróon amoon na doom muy Asan ak Useynu ak Muasin Muasin dafa dee ba mu nekkee ndaw Asan nag moom ak Useynu topp ci duñ ay seex mhm. imaam itam yaayam am ñett doomi góor muy moom imaam ak cheikh imam cheikh mi tey nekk remplacé ko yàlla na yàlla may ko wér ak cheikh maay muy ñett yooyu nag la doon dajale di ko def rapport di ko wëy imam saa yu imam di julli rek mu topp ci ginnaaw di ko wëy su imam di ñibbi si itam moom la koy gungee bu fajaree tisba takkusaan timin géeyëp bu fekk cheikh tiyaan mu ngi Kaolack mhm. noonu lay aye moo tax fu mu ko yëkkati rek ñoom Zamba Zakir ñoom ñëpp xam ne mooy hymne national imam moo tax gis nga dem ba ci biir mu naan imam aqis nii yaa cheikh ci ginnaaw ñaan googu noonu. Mhm. dem yaay après yu dox ci message ay wii loof yi moo tax gàmmu bu ñëwee xale yeeg maire yeeg ñëpp a mokkal wëy bi. Mhm. ndax barke bi nekk ci wëy bi ki mu ko doon wëy. Mhm. tam ko ko muy imaam Assane Seye am na ci yu bëri wëy na ci imaam mel na ko teraanga yu bëri. Medina fa ñëwee lu nekk lay am ndax barke bi nga xam ne moom la yàlla def ci wëy boobu. ndax ki doon wëy ak melokaan ñu doon tudd ci moom ci awsa ndeysaan moom mooy Cheikh Tidiane Kaduna. barke bi am ci wëy bi ba tey Zamba Zakir bu koy ci kër da nga yaakaar ne sax Cheikh Tidiane Zakirou hmm. gis nga suñ mbokk Cheikh Tidiane bu sang njaay tam hmm. Cheikh Tidiane bu koy jàng da nga yaakaar ne moom moom tam awsa la hmm. tellement barke bi gars yi am ci wéy bi ñu ngi ko amee ci barke bi Cheikh Tidiane Kaduna da ànd ak Cheikh imam di ko wéy foo ko wéyee muy doomu imam muy magu imam muy rakku imam muy ko xam imam xol bi day tooy parce que da lay fàttali automatiquement yaa ngis imam di dox Cheikh Zaka du topp ci ginnaaw mhm. moo tax ñu koy ñaanal Cheikh Tidiane Kaduna moom tam yaa ne yàlla guddal fanam may ko wér wéy bi dem na fi bu ne dem na fi kudwaar fu ne di ko fa wéy mhm. fu mu dem dina fa am dara mhm. moo tax moom day génn kaset sax gars yi dañ ko réclamé ne ko wéyal wéy bi ci biir kaset bi ndax barke bi am ci wéy bi ndax ki muy fàttaliku ci wéy bi muy Cheikh Assane yàlla yàlla yokk leeram Cheikh Assane amin amin jërëjëf Cheikh Abdou leeral yooyu am na solo hmm. ñuy siyaare képp koo xam ne mi ngi ñuy topp si Facebook bi moo xam YouTube bi moo xam dafa toog si télévision bi di ñu seetaan hmm. ñu ngi lay siyaare bu baax a baax tey siyaare tey suñu benn xarit muy maître Diallo hmm. nekk avocat foofu noonu di suñu xarit di suñu féete di ñu féete fu nekk nag wax dëgg yàlla nekk taalibe Sàng Barxaamu Njaay ñu ngi koy siyaare bu baax maître jàllo euh, ñu dikkaat si yow rek euh, dégg nañ ba mu amee fukki at la la la imaam mokkal alxuraan ñu ngi koy wax ci lu wér moom ci moom sax nettali na ko mu ne maamee fukkaat la mokkal alxuraan mm-hmm. waaw ci daara naar boobu nekk mi dina bàyyi après nag suñ daaraam pour perfectionner langage am ak xam nga yi ci yu ci ànd mm-hmm. dafa ñaanoon bàyyi mu may ko ndigal mu ànd ak suñu daaraam mu dem Mauritanie mm-hmm. bokk na ci histoire yi gën a metti bu koy nettali yow sa yaram day daw mu ne bañ demee Mauritanie di jàngi alxuraan mook suñu daaraam dafa ñëw moom imam laaj ko ne yow Assane xanaa doo sangu mu ne maam fooy sangu mu ne Mauritanie ñun suñ daara fi mu nekk ak fu ñuy rootee da ngay def juróom-ñaari kilomètre dem rooti indiwaat te mu ne boo ñëwee balaa ngaa xalaat sangu dañuy may jur yi bañ naan ba pare xar yi yeeg giléem yeeg nag yee xar yi bañ naan ba pare mu ne ñoom taalibe ñu ñu doogan mu ne ko moo tax foofu kenn xalaatul sangu léegi xalaatal sëriñ bi fa mu toll jaar na ci jamono yi nga xam ne ndox bu ñu sangoo duñ ko am bu ñëwee fii Kaolack ci Medina Baye te maamam maam Astou Dawour muy Awa Baye Niass moom moo koy may ndox mu sangu pour ne ko Assane kaay nga sangu pour nga ànd ak nit ñi. Mhm. parce que tellement gëj naa sangu. donc loolu jaar naa da nga xam ne te dafa dafa xale yi mu ne leen muy doomam bi muy mun muy ñenet xale foog mu nangoo jaar fi yoon wi bàyyam jaarum ba dëgg jam ko pour bu ëllëgee fruits yi war a récolter mu récolter ko. mais boo jaarul ci yenn métier yi. munoo dem ba boo màggee bëgg a am rek yaakaar ne dund gi rek lu neex rek la. mun a njëlbeen dafa metti woon. waaw xam nga ku nekk ci daara bés bu ne nga dem ci 7 kilomètres root defaat 7 kilomètres retourné. indi ndox balaa ngaa naan ñu ne na xar yeeg bëy yeeg gëléem yi naan. ba pare yéen ngeen doog a naan yéen taalibe yi bu subaa nga xëyaat doog a tañ jàng sa alxuraan gi wattu ko pour mun a ñibbi siwaat te def na daanaka ñaari at ak genn wàll daanaka ñetti na ko moytandi doog a dellu siwaat mm-hmm. ci xaal boobu noonu ci la dellu si waatee Sénégal doog a duggaat ci daara ñu ne Pa Amadou Thiam mu jàng fa grammaire muy naxaw ak xam nga kom jamonoy maam yi ci ñu université mooy woon majalis da ngay jógee fii dem ci Moustapha mu jàngal la nax nga dem kenn jàngal la war yeneen jàngal la nangam département université yooyu amoon ci jëmu paa yi muy Tivaouane muy Touba muy Medina Baye moo amoon soo paree nag ci ngay commencé nag ci xam-xamu Baye itte Baye Baye mu ne leen eh, jamono ak seen jamono ak suñ jamono nekkul benn ñun seen jamono ñun bàyyi kenn du ñu laaj diplôme. Mhm. mais yéen seen jamono pour ñu xam ne am ngeen xam-xam foog ngeen am diplôme loolu moo taxoon bàyyi sélectionné leen te moom moo ci jiitu mi 1962 bàyyi ànd ak moom dem ak moom fu nekk Jérusalem ak Makka fu nekk doo ko yóbbu Égypte mu commencé jàng pour rek li ma doon wax sànq comme niveau bu ñu am ci àdduna léegi diplôme la pour bàyyi mu ne pour mu dem jàng ji li ma leen waxoon moom bàyyi mooy dem leen ngeen jàng ji pour ngeen def nañu ñu nekk ay nit bu leen jàppee seen bopp ay nit ñu ndaw. bu leen jàngi rek pour ñëw servir seen gox rek seen quartier waaye jàngi leen pour être des citoyens du monde pour ngeen jëriñ àdduna bi mais pas jëriñ sa gox rek donc ci viatique boobu nga la demee ba mu taree alxuraan ba moo la wax noonu 62 ci la ko bàyyi wàcc Égypte bëgg maa comme yaa ngi ñëw mhm. bu fekkee da bëgg ma continuer foofu mën nga continuer foofu si kanam voilà ba mu demee Égypte foofu lay nekk bàyyi bind ko benn lettre bu seen bopp ay nit ñu ndaw jàppee leen seen bopp nit ñu mag li xale yi am ci jamono tux cigarette yeeg affaire dugg ci jigen ak affaire nangam nangam boîte de nuit yooyu bay bi leen ko seet moytu len ko yéen xam len ne dañ len indi fi pour ngeen nek nit yi nga xamne ne des hommes universels ngeen bay bind ci lettre bi ne ko talab tëgu muy xëy wa antum awliyaa la bay mu ne yéen ñi sama doom yi muy imam muy mohammed Cheikh mohammed Nazir Cheikh mohammed Hadi Cheikh mohammed akhib euh Cheikh mohammed Mamoun ak Cheikh mohammed Amin muy Baba Lamine ak Serigne Mamoun ak Cheikh Maay bi al kii bu mag bi alxalif général ñoom sett yooyu la bàyyi ne ba ma leen di sàkku allah ba ma leen di sàkku ci xëy ba damaa ñaanoon yàlla ñu nekk ay wàllu yàlla ba pare bàyyi suñuy suuf abookom ibrahima seen bàyyi ibrahima te imaam mu ngi ci biir imaam sët la mais bàyyi boole na ko ci doom bi jikko yooyu mu leen yaroon nag ba dee su ko def Égypte daanaka da ngay jaar képp ku jaar foofu rek moom université boo nekk muy bu Sénégal mu bu Amérique soo moytoo yu bon yi moytu stupéfiants yi moytu boîte de nuit moytu cinéma yi moytu danse gi jàng tax laa jóg amul sikk saaka ne di nga am li nga bëgg mhm. imaam nag loolu la jàng ba pare ba mu pare ñu oo ko libi pour proposer ko benn post de liggéey mhm. parce que papaam xam nga dëkk yi papaam mooy yore xaalis baay mooy joxe dépense kër baay sëñ Aliou ay sareet la yore woon ak machine walukaay pour dundalee ko njaboot gi mhm. bàyyi dem ba jamono mu ne ko sëñ Aliou di jël sama xaalis nga ciy dépense o sëñ Aliou mu moom xaraamal na boppam ak muy jël ci xaalis bàyyi di ko jox jabootam mu lekk nga dégg ëddëbu taalibe yaa ngi dégg imaam xam na mooy papaam jàng na war na tekki mu ne kon xaaral ma jëm uti liggéey pour mun a soutenir sama papa jàppale sama yaay pour ñu am sax lu mun a jàppale tuuti kër gi mu mun a taxaw ñu proposé ko benn liggéey pour ay deux cent mille par mois mu yónnee ni yaayam Cheikh Mamadou Haadi yàlla yàlla yokk leeram moom tam xaritam bu mag Ya, baye adi yalla yalla fay ko lim jappale Cheikh Assane ak lim mu Baye borom gamu gu neex bi Cheikh baye Cheikh Mamadou adi mhm. yaangi deg munoko mu bu nga layal ma Baye mu may ma ndigal ma dem ci liggéey be ma am ko comme ça muna am luma jappalo suma bop ak luma ma suma sama mhm. ak jàppale ko mom Baye mhm. Baye ne mu Cheikh Mamadou adi waxal imam nga ko bu bëgg la bëgg def wala mom lim bëgg def mu wax ma bu fekke lima la mom na préparer mu dem Angleterre su fekkee ne dafa bëgg liggéey nag ah mun na dem waaye man bu fekkee li ma gënal la na dem jàng ji Angleterre ci la imaam laxasoo ne bàyyi ban ak ban xaalis bàyyi na ko yow soo nekk ci yow demal ubbil benn compte man lépp lu war sa njàng dinaa ko ci def noonu la fa nekkee ndeke bàyyi 1946 awsu yi njëkk a ñëw mi dina bàyyi seet si bàyyi ñoom maalam Tijaani ñoom Sani Kafanka ñoom Gibrima ba ñuy fekk bàyyi tey ba dañ ko fekk imaam Assane comme 1945 la judd ñu ngi fekk imaam mu ngi raam bàyyi mu ne yàlla rek mën mhm. bés bu may génn àdduna xale bu ndaw bii di raam rek ku koy fekkee 1946 xam na ne imaam moo ko war a fekkee mhm. imaam bàyyi feebar na 73 ñëw faju si 71 tam dem na France faju ci imaam day jógee Londres ñëw seet si bàyyi bu jógee Angleterre ñëw seet si bàyyi bés dama ñëw seet si bàyyi di ñibbi bàyyi ne ko Assane ndax am nga paas boo ñibbee mhm. kaay ma jox la paas mu ne pàcc bi fay dab ko indi ay franc français boobu jamono franc français la yu bëri jox ko mu ñew delo ko baye nako baye de amna billet bu ma ñibé ni Angleterre mais même weekend prochain billet train mu wara jënd sa jënd naa ko nga baye wax fa message bu mag bu jënd ñep wara mokal mu ne ko cey ni de la baye de warta nekk portemanteau bu nga xamne soxla bo am rek yan ko sa baay warta nekk portemanteau ba yow dom soxla bo am rek nga yan ko sa baye sa à dire tu dois être pouvoir capable capable yow nga demal sa bop parce que lolu imam woné mm-hmm. étudiant la xam naa di ma laaj fan la jëlee xaalis bi. Mhm. li étudiant yëpp di def dugg ci restaurant yi di raxas di def ay commerce yu ndaw lu ñu def ponche ci la daan foraatu lu mu am as néew jëndee ko bii seet si bàyyi su paree mu delluwaat Londres. Mhm. sama dafa jamono sax mu am kéemtaan bu mag bu fa am te sama toog am soxla. Mhm. ta xam nga sëriñ daara taalibe itam doomu nekk daal jaataar ci daara di nga am as. as ngalam nga koo jëlee ci daara ji. mu ne mu am soxla rek mu jël benn xaatim dagg ko am lu mu ci wédd rek benn waaye ñoo fekk ko rek jox ko malit xaalis. mu xool te waajee nga ñëw ci melokaan waa Angleterre mu di ko xaalis bari mu pajee ci ay soxlaam depuis boobu tur boobu sax am na gars yi bari ba tey ñu ngi xam naa tey dégg émission di nga ci sonnal Cheikh mhm. ndax efficacité bu tur boobu am mais itam pour wàll itam ndongo daara bu jàqee xam na fan la war a jaar mhm. te imaam fu mu mun a nekk surtout ba muy dem Angleterre xamu fa kenn mu ne alxuraan rek laa yore di jàng alxuraan fu ma jëm alxuraan laay bëgg su may dem rek damay bind lii bind li mu bëgg laa laaj question bi bu goy luy jënd how much is it lii ñaata jar kooku tontu ko boo dee bu laajte leneen lu mu dugg rek bind ba ni mokkalee anglais bi ba mu ne mujj gi sax comme njàng alxuraan fajar gi da ko bi mu dendal benn anglaise dafa yeewu suba teel di fëgg néeg bi kon kan kan imaam mu ne mu yaakaar am mu ne imaam yeewu na ko lan la mu ne ko ah damaa gis ne heure bi nga doon jàng sa jàng sa musique bi alxuraan lay ooyee musique bi mhm. dafa jot te jàngoo ko moo tax ma la doon oo nga xool même chrétien sax mu ngi koy nongul ne imaam heure bu war a jàng alxuraan mu ngi koy jàng mais itam nga gisaat itam honnêteté intellectuelle moom mu ngi lay jàngal ne moom bés bindat dina mhm. ba wasinam bi dul julli mhm. mu am ko bàyyi yare mhm. bàyyi moom léppam mu ne alxuraan la moom léppam mu ngi amee mu ngi ko amee rek ci barke alxuraan donc imaam moom nag moo jaar ci cursus universitaire noonu ba ni bàyyi di gaa gaañu 1975 mu ne dafa toog ba bàyyi oo ko ne ko Assane mu ne ko naam mu ne ko ngi lond bi lond mu ko waaw mu ne xaar ma foofu mu ne ko bàyyi ndax da ngaa bëgg ma ñëw mu ne ko déedéet xaar ma foofu man mooy faju suma yaram bi Angleterre laay ñëw mhm. yaa ngi dégg fekk am na benn wuykat Ibou Diouf bu mag boo xoon ne biddew bu mag bu fenk ne daanu Londres pays Angleterre imaginel Moustapha jamono yooyu Kaolack mhm. nit naan Londres dans les villages là nit ñi xamu sa luy Londres boobu boobu wuykat la mhm. moom gaañu na ay 1957 avant Baye ngi wane ne Baye Niass mu mu ne mbóot mi journal yow ko nar a feeñal xam nga bàyyi samedi la gaañ <laughs> lundi suba teel la journal yi génn annoncé ne Cheikh Ibrahima Niass est décédé à Londres kon xam nga bu fekkee nit simple rek taali bi simple la yàlla mën a may mu am kës bu di gis sàkkaanduma ak Baye Niass mu gisoon ne buy génn àdduna diw bi moo koy fekkee imaam centré dafa ñëw setti Baye yi mu feebar bàyyi na ko indi sa loxo ma bind la ci li nga xam ne du ma dee mukk te fekke woo mu ne bàyyi jox jox ko loxoom mu bind bàyyi jox ko loxoom mu bind jàng ay baat moom tam muy jàng ay baat moo tax ba bàyyi di gaañu mm-hmm. na ba mu defal ko ba pare sax ci mu nekkoon loon foofu muy paaka bi pay doo ko agsi ci biir néeg bi. Mm-hmm. mais li ma la bëgg a jàngal mu mm-hmm. bàyyi ba mu ñëw Londres loolu la ko yàlla may xiddawalee imaam ci mu mujjantali dund baay moom ñaan ñoo fa nekkoon vingt daanaka vingt sept vingt sept à vingt cinq jours yi bàyyi def bu muy génn àdduna imaam moo nekk ci wetam bu météo bi waxee. moom imaam moo koy traduire ma desaan bés. imaam mu ne docteur bi dafa ñëw ne ko man daal sëriñ sëriñ bi jaaxal na ma mun ne ko doxalan mu ne ko his body is sick but his heart is clean mu ne ko sëriñ sëriñ bi dafa maa jaaxal parce que xol bi dafa set wet ci yaram bee ngi feebar mais xol bee ngi mel ne xolu jeune. xol bi dafa set wér yaa ngi dégg imaam mu ne ma fàttali ko bàyyi ay alxuraan ba yow wala yan foofu maalum wala banuun illa man ata allah bi xalbin salim bés a ngi ñëw bu nga xam ne alaxira alal du fa jëriñ doom yu bëri du fa jëriñ parce que yàlla mënoo ko fay du justice comme ñu yi ngay neexal justice bi mu baax la yàlla amoo loo ko fay loo bëri bëri alal mënoo mënoo mënoo corrompre yàlla kon alal ju bëri du jëriñ alaxira wal banuuna doom yu bëri itam yàlla nag mu ne bés boobu dara du fa jëriñ illa man ata allah bi qalbin salim ku dul ku ñëwee yàlla xol bu set wecc bu dañ ci bokkaare alxuraan mu ne alladina amanu walam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaayika lahumul amnu ulaayika humul muminuuna ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te seen gëm yàlla ci amu ci benn benn benn benn pepp dokkaale yàlla mun a ñoo ñoo nekk siraatal mustaqim te ñoo ñoo am couleur yàlla nañu si yàlla boole gis nga yàlla topp ci dama jëgg ko jotu na acce naa ibrahima mu ne loolu may na ko ibrahima si dee foofu lu mën ay dix-sept yónnent ba pare mu ne fa bixu daaxumu ti def ci yi ma ne mm. na mm. kon émission bi sax fàttaliku am dañ koy fàttaliku ci wax ay jikkoom pour nit ñi mun ci royee résultat bi mu am pour ku ci nekk góorgóorlu xam ne nit la ku mm-hmm. am résultat ci benn jikko yi mu am parce que l'islam yëpp jikko la mm-hmm. yonent yàlla moom taal taggewu ko dara lu juddoom baax na may maamam baax nañ dëkk màkka baax na euh, lu ñu ko nattee rek baax na mais yàlla taggewu ko loolu yëpp mun na julli taggewu ko mun ngaa julli taggewu ko mun naa or taggewu ko dara wa innaka laa la xóolu xeer azim dangaa kawe jikko yow yonent yàlla moom dangaa kawe ju nekk jikko sa jikko dafa rafet donc jikko yooyu nag nga xam ne xam naa bu ci duggee ci benn phase bi mooy jikko yu mag yi ko moom imaam may bokk na ci yooyu noonu hmm. mooy roy gi mu roy bàyyi ci melokaan yooyu ba mun a apaiser bàyyi ci benn moment moment boobu nga xam ne kii bàyyi mu ngi ci nekk phase terminale am mhm. nga mun ko di ko bégalee ci la docteur wax ne ko jëmb ji de mu ngi feebar waaye xol bi moom dara nekku ci mhm. mu ngi yore xol bu wér bàyyi ne alhamdulilah rabbil alamin mhm. waaw mu ne benn tubaab da ko laaj ne ko sa maam ba mu nekkee ci phase terminale am ba docteur bi ñëwee parce que imaam dafa ñëw bés mu laal loxo bàyyi mu sedd guy mu laal tànk mu sedd mu dem ci docteur bi ne seet sama maam ci daal loxo bi ni mu sedd jaaxal na ma mu ne docteur bi ñoo ne ko boo gisee loxo bi sedd nii mooy deret ju xol bi di pomper moo mënu deg seeg ci loxo yeeg ci yooyu moo waral ñu sedd mhm. te ci kanam léegi léegi xol bi arrêté mooy dund ga yem fa mhm. bàyyi imaam mu ne ko bàyyi dafa ma waxoon lépp lu ñu la wax nag ma ko wax bu ma bu ma nëbbu dara mhm. mu ne rek mu wax bàyyi ne ko kat mu ne xol bi mooy waaj a taxaw mu ne bàyyi ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw parce que bu fekkee yow su dund gi def ko ci li neex yàlla su dara desalul dem fekk sa borom itam sant yàlla rek nga mën a def moo tax Cheikh Ibrahima boobu itam ak imam Assane mun a wax imam Assane te doo ci laal Baye Niass bëri na tey lu bëri lu nit ñi xam ci Baye Niass ci barke Cheikh Assane la parce que mun na naan la Baye nee na ma Baye nee na ma xam nga loolu yombul Baye da ko daan wax mu ne bokk na ko ci bokk na ci taarix fekkee boo bëggee rettali histoire niñ toogee nii maa yow mun nga ne Cheikh Abdou nee na parce que yaa ngi may gis. Mhm. keneen ku may sante mun na ko. Mhm. mais boo dañ ko jege rek dégg naa Moustapha mu ne dégg naa Samba Zakir mu ne bu yàggee da nga dem ba dégg naa bi day nekkaat beneen version parce que loolu authentique mhm. parce que dégg naa dégg naa yi mais boo ko déglee ci source sûre dafay mel dafay wér moo tax imaam ñu bëri Cheikh Maay si rakkam dafa am bés ndeysaan ginnaaw ba imaam gaañoo mu ne ma imaam da lu ñu koy nammee rek mooy lépp lu xew a musa xew rek wala lu xew dina ne bàyyi nee na ma bàyyi nee na ma boobu lañ ko nammee mu waaye dara demul lépp fi mooy yar geeg teggin geeg maqaama yeeg xaal yeeg yëpp am na nooy ma rek pour yàlla may la lool. ci gàttal daal ci yoon boobu lañ mën a tënkagum phase bi nga xam ne imaam moom la jaar. ba jàng anglais ba ànd ak Baye Niass ba mu nekk London noonu. ba après nag 1975 ba Baye gaañu moom 76 mu def thèse ba pare mu ne mu ngi dem ñaan papaam na ko defal listixaar mu xool ndax dafay dem Angleterre wala dafay dem États-Unis vacances mu ne sëñ Aliou defal ko listixaar ne ko ah su gisaane daal soo demee Angleterre. yaa ngi ànd ak yàlla waaye soo demee Amérique yaa ngi ànd yoon ci yàlla Muhammad mu ne ko ah, papa tànn la mu dem mu ne ko ah, laa ah, yàlla de moom xam nga yàlla moom dafa wéet moom àndut ak dara mhm. mun nga faa dem ko ça veut dire peut-être day wow kong mu ne kon naa dem ànd ji yoon ci yàlla la Angleterre mhm. ba mu demee Angleterre ci benn quinze jours ba mu fa def ak anglais yu ndaw yu mu doon def di def conférence ci islam ak tarixa bi daanaka lu mut ay cent américain ci lañ tuubee ba moom ñibbisee Sénégal su waxee mu ne am naa ay taalibe américain ñu naan day wax rek demul fenn Kaduna gii la dem wala Lagos cest à imam demul Amérique. nit ñi gëmuñ ko. ba nit ñi nekk foofu di ko seet ci hôtel bi famille Dibson beeg ñu bëri ñu fa nekkoon yàkkamti nag ba ñëw gàmmu si 78 kii Medina Baye bañ gisee américain ñëw ñu ne xanaa imam nag mu ne xanaa léegi nag dinañ gëm na am naa ay taalibe américain. Mhm. ba tax tey boo demee Medina Baye gis nga làkk fa anglais yomb na. Mhm. bien sûr ndax awsa yi mais itam surtout nag par rapport américain yi tey am na ñu bëri ñu am jamono américain am na ñu bëri ñu am jëkkër américain ci barke imam dem ngim dem Amérique bu ubbi ko ci la ko yàlla may loolu am na ci histoire bu mag bu fa musa am moom moo nettali ñu ko ne dafa am benn bés mu ñëw Amérique ndekk ci biir avion bi suñu maam Abdou Aziz Dabakh ndeysaan mu ngi ci biir ak ministre de la femme Ndioro Ndiaye bu jamono boobu mun na yegg ba Washington avion bi wàcc ñu ne bu kenn wàcc ba sëriñ bi wàcc ah mu ne madame Ndioro Ndiaye mu ne maa Abdou Aziz Dabakh man da xam woon ngeen fii ba am ngeen ay taalibe yu leen teeru fii mu ne ko déedéet xanaa gisoo imaam Assane foofu mu ne ko déedéet xam nga imaam Assane mu ne ko déedéet mu ne ko imaam Assane mooy imaam jumaa Medina Baay mhm. surtout Baay Ñas la moom moo am ay taalibe américain moom la ñuy teeru noonu parce que moo fi ñëw ngan si mhm. nu mu waxee parewul rek imaam wax commandant boobu ne leen déedéet wax leen sama maam ma Abdou Aziz da baax na wàcc moo daay daayira yi nekkoo suuf mooy leen mboolem escorte bi ngeen ma tegaloon jox leen ko sama maam ba ngeen yóbbu ko ci dalukaayam ma doog a génn mhm. ma abdu mën a gis nga de doom ju baax a ngi ni sët bu baax a ngi ni nit ñuy gis boobu la ma abdas boole kook ak Seyda Njoor Njaay ba bu sax madame le ministre Njoor Njaay ñëw ne ko seetu fàtte mhm. bés bu mag wane rek day mhm. ba mu doo ba tey ji ci bari na yàlla fay ko eh, Cheikh Abdou nañ see tudd nga fi ba mu ne liggéey ji daan liggéey warnewul rek ni sëriñ daa toog fi mu bu eh, waxaat nga fi leneen loo xam ne bëri loolu tamit see jàng lu bëri am na ko may message sànq si la bokk mhm. eh, Papa Sarr nekk Abdourahmane fii nee naan ma mi ngi naan ma émission bi riis na trop mm. mi ngi naan ma xaritu sàmm mais la maa ngi koy siyaare moom it papa mm. di ko jaajëfal bu baax ñi ngi may envoyé boobaak léegi nag ay message yu bëree bëri mm. naa moom it taalibe Baye euh, baax a baax waaw sànq rek mi ngi ma koy wax euh, xam naa ni tey Imam Assane moom fàttali ko moom wax dëgg yàlla dina tooyal xol yi waaye dina neex si xol yi tamit ndax wax dëgg yàlla li mu fi jàngale dafa bëri trop trop trop trop trop tuuti ma dem si sàmm mu zikaral ñu tuuti rek lu mm. gàtt ndax waxtaan bi dafa gudd mm. ndax am na lu bëri lu ñu war a waxtaanee te bëgg nañ nga dikkal ñu si si lan moo nekkoon ko baaw imaam Assane fii si àddina bi mm. loolu yëpp bëgg nañ nga dikkal ñu sàmm que zikaral ñu tuuti lu gàtt rek ñu doog a ñëwaat si imaam أغس أغس يا مقيس الكون الكربي بالمستوى مضى من صفوة الأربي أغس أغس يا مقيس الكون لي كربي بالمستوى متام صغوة العربي لا في الدلال وماء الكفر أفضل من قد أرسل الله مقتل الفضل والعربي نعم الملاذ الصفي الكون قاتبة بمدئ وصنع قاد لي عربي يقوي إليه فئام داله وزروا سواه دينا سواق من وراء الخجب وهو الذي استجل الحق مقتقما أوى إليه جميع رسل من قربي لبى لدعواتهم ورب قال له سلطس دواسفات الصفا كاسر النسبين يقوي إليه فئام لا لغو وزروه سواه دينا سواه من وراء الخجب يسقي ويصفو مقمود المقام ومقصد الأنام وهذا منتهى بي إني ألوذ بي في كل آونة أرجو نوال بلا ست ولا سببي لا أتجي أملا كلا ولا أدبا فقد تجرت عن علمي وعن أدبي لا ألتقي في قياتي زولة وأرى فوق الكبار بلا كد ولا تهب أرجو وآمل تفريج الكروب لآل دين قنا بلا كد ولا نسب هداية وقنا ونيل آفية أزي لهم قلفنا مصطفى العربي أقد الإمام الذي نرجو هدايته أفيد فيدا يبقى دائما حكمي بياتني منك يومي ما دريت فلم أزيل الباب يومي لم أنل تلبي لتقطعني عن غير وزقزغته بالمصطفى وأذي الفغر كذا وسبيل سل الوسخ رجال الأسر قاتبة لقيد يضيء بي في قطبي يا رب أرق أنوفا كابر وتقوا وشددن عليه وتط الأدب ننجو من الباي والقال المذل مدى أياهم وورثنا مك كل أبي زلزل الهي امور الابتال مهو وانزل عليه قاب الذل والسلب صدق قرابا وموت الناس وات الي افغر والاجر قبل الموت والاتم أه، سامبا أه، واخ دغ يالا نيغا نيغا تيجي نيه أه، نانيو رافن دي نغا جي سيلنا ñaan wi neex na lool ñu ngi lay ñaan yow it sa baat bi yàlla na gën a wér si bi jaahi nabi Moustapha li nga bëgg si sa carrière yaa ko xam yàlla na ko borom bi def ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax imaam sànq da am foo laal nee naa la danañ ñëw si lan moo nekkoon ko mbaam si si àddina bi waaye da ngay da nga ñuy cofal fii tuuti ndax mm-hmm. sànq dégg nañ nga wax si nit ñu weex ñi nga xam ni imaam àndoon nañu moom mm-hmm. tey yow rek am nga koo àndal muy sërif mm-hmm. wax dëgg yàlla waroon na toog si plateau bi waaye ñu ngi ko koy jégal bu baax moom du ñàkk dina ñëwaat incha allah yoon ñu waxtaan ak moom si imaam Assane moom mu nekk taalibe imaam Assane daanaka sërif yi tamit ay taalibe imam Assane lan mm. seen relation ñoom ñaar lan lañu woon waaw Chérif Cheikh Tidiane Rabbani bi ma nuy maa ngi koy ziar bu baax ci bés bi dëgg yàlla moom fu may dem rek daanaka ñun ñaar ñooy ànd mm-hmm. ndax imam moo ñu boole jaarale ko ci bundu porte parole muy Cheikh Maye Cissé mu jamono bàyyi comme mu daan jàngale alxuraan mu daan def yëpp jamono dafa gis ne pour ñenn ñi olof yi làkkat yi ñu am maxaajul xuruuf ci la ñaanee famille rabbaani bi ñu ñëw di leen jàngal alxuraan doom yi daanaka doom yi bari ñoom imam Assane mi nga gis ni mhm. papaay Chérif Abdoulaye rabbaani sëriñ moo ko jàngal alxuraan mhm. ñoom Cheikh Maye Si sëriñ daara papaay Chérif mi cateen rabbaani ma leen jàngal alxuraan mhm. comme doom baa ngees yu bëree bëri à part ñu mag ñi ñu ci bëri doom bàyyi Cheikh moom Abdoulaye rabbaani moo leen jàngal alxuraan ba tey jamono ji moom mii tey ak magam Cheikh Ibrahima ñoom ñoo yore daara daara naar bi nekk foofu Medina Baye Baye joxoo leen cër itam chaque weeru koor ñoom ñooy def naafila kaamil bi mi dina bàyyi bés bu njëkk weeru koor ba guddi leetul xadri ba tey ren ñu ngi koy def dañ ko def parce que ñoom la ko bàyyi sédd ba tey mhm. ba tey surtout ñoom tam ñoom ñoo leen jàngal mhm. ñooñu côté bàyyi ñes la mais bàyyi imaam moom xam nga bàyyi yàlla doo ko may ba mu ootee Sénégal daanaka doole fa gën a mag Afrique muy kanu la dem nag door ko muy Nigéria waa Nigéria la bàyyi toj mooy dëkk ba gën a rëy Afrique mhm. ëpp population xam mooy doole bàyyi fa la nekk ñu naan ay quatre-vingts millions taali bàyyi rek daanaka ñu nekk foofu si parce mhm. yaa ngi dégg après imam moom ba mu xoolee ak langue anglaise bi mu am wax naa la ca vacances yooyu mhm. ak ang gi mu nekk anglais bi nga xam ne moom la ko moom la ko yàlla may mun a am na bés bu ngi nettali mu ne seen cours en Angleterre dafa am bés ñuy def cours professeur bi di waxtaan ci sàngara ko njëriñi njëriñi sàngara sàngara dafa baax sàngara dafay faj day may wér alxuraan da tudd na ne sàngara mhm. am na ay ngireen mhm. imaam na ko waa léegi nag professeur yow ñun classe bi yëpp ay jullit dafa nekk nañuy wax njëriñu sàngara mhm. te yàlla tere ñu sàngara innamal xamru wal maysir wa azlam waritu dem ba ci biir nag am min kii fajtani bu min amali seytaani fajtani bu mu ne yàlla mu ne sàngara ak jënd azar ak yàppu mbaam yooyu yëpp yu baaxul la na ngeen ko taw na ko teg nga yow nga nekk ci classe bii ñun ñu nekk ay doomu jullit nga ñëw wax naa ne sàngara am na njëriñ nan ngay def léegi ak xadis yonent ci Yàlla Muhammad salaam bi wax ne lépp loo xam ne lu bëreem day day day indi day indi bàkkaar lu ndawam dafa xaraam c'est-à-dire sàngara xam alxuraan wax ne ku lu kii naka la tudd laa taxar boo salaata wa antum sukara bu leen jege julli fekk yéen a ngi màndi xam nga yenn dëkk naare ba tey boo demee dañuy naan ba waaje mandi ñu teg ñu mhm. ne parce que alxuraan da ne da ngeen demee ba mandi na ngeen ko teg parce que julli bu leen ko jege fekkee ni nga mandi ñoom seen dégg-dégg foofu la ci alxuraan mais xam na ñëpp process bi alxuraan ñëw ba tere sàngara parce que ni mënu woon rek ya. mhm. tëb ne bàyyi leen sàngara alxuraan process la bañ bàyyi alxuraan mais comme julli ñu leen neex ñu interprété ñun ya, ndokk ba mhm. Sénégal bi du interprété wu noonu léegi mu ne professeur bi lan moo tax yonente bi ne lépp lu nga xam ne lu bëreem day màndi lu tuuteem xaram na nan nga def ak addis boobu mu ne a ah, professeur ne ko eh, yow Assane noppil yow commencé ko sax mel ne ku nekk benn mufti naan danga may yedd mu ne jour boobu muy génn xale dañ kontaan ci tontu mu tontu professeur bi ba dañ ko teg seen mbagg bi di ko tàcc gunge ko ba këram ndax wan la rek ni mu yàgg a défendre l'islam parce que moom la mës a gëm moom viatique bi ko bàyyi jox mooy base bi yëpp mooy alxuraan la maa farat naa fi kitaab min shay'in comme lépp ak ci biir alxuraan kon daxwa booy mun a daxwa rek dangay gis sax mun a alxuraan am na benn bés ñu ma waxtaanoo ci imaam dama jël benn aaya rek inna lazina yatluuna kitaaba laahi leen aaya bi kitaaba laahi ñi nga xam ne ñu ngi jàng alxuraan alxuraan moo ne faqara'uu maa tayassara mina alxuraan jàng alxuraan lu ngeen ci mën yaa ngi dégg te fii ñu ci bëri ci ñun wax naa la naari bi moo leen yar fàttewuma question bi rek muy der yu weex yi mhm, mhm. yaa ngi dégg mhm. mais jëmm ji la bëgg a indil pour nga xam doole ji nga xam ne moom la war a am doole ji gis imaam am yëpp amee ko dara loolu ci barke alxuraan mu ne am na benn bés baa nekk France yónne ko benn soxla comme ko yónne ci intellectuel yu pare rek kenn du ko réglé mu ne Assane kaay ma yónni la mu ne imaam dem rek la ko ñibbi si wax ko bàyyi docteur bi benn benn ci intellectuel ah yow bàyyi yéen ndongo ndongo daara yi xam ngeen lii bàyyi na ko ñun xamuñ dara alxuraan lañ xam ndax alxuraan googu nag mooy doole mam ba mu demee Amérique bañ ko waxtaanloo ba muy toj Amérique ci ci lu ndaw rek la ko teg. ba muy tungal ay nit itam ci ay Tchad ci ay ay Cameroun ci ay ay alxuraan la koy teg. moom amul beneen base alxuraan la am. lenn nag baaxu yàlla la moo lay may nga dégg parce que nit mun nga xam bay bëgg a dee cinq heures de temps fekk benn nit a ngi déglu du dégg dara. ba mu demee Amérique njëriñ gi mu leen doon jàngal rek mooy ci alxuraan fan la tariqa tijaan taxaw. wax leen astafurlah fu mu jógee istafurlah rabbakum boo ko waxee njëriñu laa ilaaha illallaah njëriñu la ak salaatu ala nabi comme dafa xat dooñ mën a jama mm-hmm, mm-hmm. yooyu mu won leen ko bu ci ne mu won leen jëriñ gi muy jëriñ non seulement ci baatin mais ci tam mel bi ngay mel xam nga tijaan bu ñu la teree cigarette mm-hmm. tere la naan tere la tere la tere la balaa mu lay jëriñ ci côté côté zaahir bu pare da lay jëriñ ku tuxul cigarette am na njëriñ gu mag bu mun a ay cancer de la gorge cancer du poumon cancer yi war a am yëpp te cigarette du ko joxe tijaan bi mënu ko am parce que tijaan bi laalul cigarette yaa ngi dégg xanaa ñuy tux la wàll ko waaye moom laalu ko sàngara itam la même chose yooyu nag critère de base boo ko jàngalee ay nit ñi nga xam ne tey ñu mel ne Amérique lañ ñu ngi ci lëndamaay lu ko imam daa lëndamaayu Amérique bi hmm. fale mu am benn torche bu leer naa benn projecteur boobu mën a taal te lumière boobu mënta am loolu ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yónnee sallam benn benn cadeau la ko yàlla jox rek mooy alxuraan bàyyi naa leen ñaar yi nga xam ne su ngeen ci jàppee du ngeen liir mukk sama ginnaaw muy alxuraan ak suma sunna mhm. alxuraan ak sunnam googu moom la imaam demee fu ne yaa ngi wax sànq ci commerce am bi ba mu nekkee étudiant Égypte daan jógee Égypte di jënd ay or di ko jaay ci Congo ci anga ambassadeur Congo bi yaa ngi dégg ñu ne ambassadeur bi ñu tudd Ongué mu ne imaam nekk fa def fa séjour ba jamono mu war a ñibbi benn waay ooku na ko Assane daal si ñoom si rek lañ mën a si daal nëbbu nga ñu sa bopp ñun daal xamu njaay kan yow bu la ñun lu weex yi gis jóg taxaw fekk toogoo duñ toog te nit ku ñuul bu ko nikk weex di màggare am na lu tax mm-hmm. du neen ni mm-hmm. mu ne leen waaw man sama yaay mooy taawu Baay Ñas Baay Ñas mooy suma maam Sëriñ Aliou Sy imaam mi dana bàyyi mooy suma baay ñu ne ko xam nga yow Assane boo ñu waxoon sa bopp ñu jëriñu ci waaye yaa ngi nii di ñibbi xoolal boobu da daan jënd si or di ko jaay pour mun a jàpp ci ay études am en même mun a jàppale papaam ak yaayam ku mus a bëgg famille la. ku mus a fonk papaam ak yaayam ak maamam muy bàyyi bi nga xam ne daanaka mun nañu wax moom du ko ooyee maam parce que bàyyi bàyyi la woon parce que dundam yooyu bu ko jeexal ci bàyyi mhm. benn paa laaj na ko yow imaam parce que imaam bu yeewoo suba teel mu ci bàyyi ba bàyyi di tëdd deux heures du matin bàyyi deux heures lay tëdd ba quatre heures du matin muy yeew de ne ko bés imaam yow boo màggee lan ngay raconte ci sa jeunesse ngi nekk sa bàyyi maam sa maam ngay nekkal kon yow sa jeunesse mooy lan jeunesse sax mooy bàññes bàññes ci bàññes la dund bàññes nee ma fekkee naa bàññes mu ne bàññes def na nangam bàññes def na nangam loolu mooy dundam loolu nag la importé waat yóbbu waat ko Amérique te mu ne nag baas bi yëpp mu ne mooy jikko yi jikko yi rek yonent yàlla ma son mu ne innama booy sa li ma utamima ak laa yàlla daf ma yóbbal rek yónni ci kaw suuf pour ma mëtal jikko yu rafet yi jikko yooyu nag mooy loolu xam nga bu nekkoon Congo naan man surtout bàyyi ñes man maay premier surtout baay su ma yaay mooy kii mun na am cër boobu ñu ko jox foofu sax duñ ko ko fa joxe. mais xoolal dafa jël cër gi teg ko foofu di defi commerce. di jaay or di jaay or. ñoom Cheikh Imam amoon nañ cantine fii marché asalam damaa xamul ndax jaay nañ ko wala jaayoo ko dañ daan jënd ay tissu ay Lagos yi ñu daan ay wax yu Côte d'Ivoire yi ak yooyu doon ko indi yu jógee say daan ko jaay ñu mës a gëm commerce la comme Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam loolu moo nekkoon métier am comme Baay Ñas tam comme serigne yu bari mhm. donc imam ci côté bobu wax na la ñi nga xam ne in lazina ne kitabullah ñuy jang téré alxuraan foko fekk tàkkusaan mu ngi tok alxuraan di jang jukkam parce que bàyyi dafa jël alxuraan bi diviser ko sept part samedi ngay jël premier part bi bu aljumu bu ne nga xam alxuraan samedi nga commencé wat mo tax gis nga bàyyi dafa xam alxuraan aljumu samedi mu commencé waat ubbi rek ci samedi suba tel bi ci la genn aduna pour wan la bàyyi ni mu taqee alxuraan imaam fekk alxuraan gis nga bu daan jang alxuraan ni ci jumaa ji julli muy fajar wala timis muy gée dina taxaw ba rukkoo ay paa taxaw di jooy ndax neexaayu baatu imaam bi da nga gis ay paa taxaw de ñu ngi ci julli gi de ñu naan ay eh, imaam dolli ñu dolli ñu lan ci neexaayu baat bi am na sama benn goro bu nga xam ne moom dafa ñëw màkk di umra mu gis ñu xàll pour benn di wër kaaba gi mu ne mu gestu xool comme moom dafa xaw a njool mu gis benn nit ku ñuul la ku naar di escorté pour mu tawaaf kaaba gi mu laaj ne kii kan na mu ne kii mooy imaam mi dana bàyyi man ma dëkk Kaolack xaw ma kii mu ne mu ñëwee Kaolack naa gis guddi gi mu tëdd gént imaam Assane muy jàng alxuraan mu ne ko ñu ne ko xoolal imaam Assane buy jàng alxuraan nu muy mel asamaan si di dënn muy mel la ñu ne ko imaam buy jàng alxuraan baatam nii la mel mu yàkkam di ñibbi kaw nag moom mu ñibbisee kaw la mu dem seeti imaam mm-hmm. ba mu ñëwee mu gis imaam ci la jàppee ci moom wérd ba jamono ji tey sama goro la su ma ñaareel jabar nga nuyu sama jabar amisaar ci diggante bi nuyu waare bintuli nuyu waaye awoso soxna itam ci lañ bokk mhm. parce que ñoom ñu ngi leen xamee ci barki imam lañ jógee ñu leen nuyu ñoom yëpp ci bis bi leen ziar ci àjjuma gi ba tey alaaji ismaila sarr maa ngi koy ñaar itam ci noonu la xamee imam ci jàng alxuraan amul kenn ko xam alxuraan nekk Medina Baye te bëggoo imam wala muy xutba da ngay dégg nit ñi dañuy jooyee jooyee jooyee ba yow sama sax soo moytu doo am concentration julli parce que moom bu jàng alxuraan dafa mel ne kàddir gu may dënn bi guy bax foog mu yóbbaale la ci intensité ak saveur yi alxuraan am na bés meeru London mhm. dafa ñëw seet si imam mhm. imam imam tisbaar na ko ah monsieur le maire nga baal ñu ngi dem julli ji mu toog xaar ko tàkku saa mu ne ko ñu ngi dem julli ji mu toog xaar ko timis mu ne ko ah imam doo ñu mer ñu ànd dem ma xool jumaa ji na ko ah le maire fële de jumaa ji la pour julli la te jullit ñoo fa nekk te yow doo jullit mhm. ah imam même rek ma dem seet mu ne ñu ànd timis dem ànd ak imam même ñu ne imaam di julli lu mu gis gaa yi def rek gaa yi def ko gee jotaat muy julliwaat ànd ak lu gaa yi def rek mu def ko ba mu paree ba ñibbisi moo imaam ci kër gi mu ne imaam man daal am na lu ma jaaxal mu ne gaa ah. mu ne ko way jàng alxuraan man xaw ma ci dara waaye lu ko dalee su ma bi ba suma wewu tànk bi da ko yëg lii lan la nii mu ne ko lii mooy alxuraan mu ne ko lii lan la ñuy def ba bokk ci ndax ñaata laay fay imaam nag lii amul fay dara <laughs> da ngay nangu rek ashhadu an nanga washhadu anna muhammadan rasulullah ñu jox la lislaam ñu jox imaam noonu la ko tubalee maire London ñu jox ko ñu imaam tubal ko jox ko lislaam ba mu ñibbee Angleterre mhm. mu oo imaam mu imaam man de am naa problème mu naa mu ne ko ba ma tuubee ba tey suma jabaar dem na ànd ak sama doom yi kër gi daal muus bi rek lañ ma fi bàyyi ko lislaam ni la bu fekkoon sa tub bi nekkul dëgg kon doo mel noonu waaye yàlla lay nattu pour xool ndax sa tub bi dëgg la alxuraan la mu dafa xasitum an judal ko an yaqulu amana wa hum la hmm. ndax da ngeen yaakaar ne ngeen wax ne gëm naa yàlla te yàlla du leen nat e, foog épreuve am hmm. mën na ko ne épreuve bi la boo ci jàppee rek insha allah loolu du benn yoon du ñaari yoon ay américains yu imaam tuubal foo dem ci amérique ay zawi yu bëri hmm. ba ñu koy jox sax eh, prix d'honneur ay citoyens de ville de dëkk yu bëri la ba ñuy defal imaam ñu ngi wax imaam Assane Cissé day ay Michigan ay Detroit ay Illinois ay Atlanta ay Memphis ay New York ay Washington loolu yàgg na ay année année quatre yi la quatre-vingt-quatre quatre-vingt-cinq ay Gambie yëpp ay citoyen d'honneur la ñu jox ko clé de ville yàgg na boo demaan dëkk kër saalam bi nga gis déjà tableau citoyen d'honneur yi noonu ci saal bi noonu la ko yàlla ubbile woon ci dëkk nit ñu yaay mais Baye moo ko bëggoon mhm. dafa mel ne bàyyi moo bay côté tool bi ba pare bàyyi côté Amérique mais imam bi ma demoon fexe ba dem njàng Amérique moom laa bàyyee pour nit ñu weex yi muy eng tey jamono ji tey ñi fa jëmbat muy muqadam yu bëri ay muqadam américain ñu ngi mhm. États-Unis mhm. ñu ngi ba Trinidad ñu ngi ba Jamaïque ñu ngi ba Antilles foo dem tey fekk fa ay taalib imam ñu ngi ziar waale ñoom Kafaani ñoom Moustapha ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñoom xam Dimson ñoom imam Ahmad ñoom ñoom ñu ngi leen ñu ñoom Seyda Khadija soxna imam ñu ngi leen di ci bés bi parce que ñoom tey bu ñu leen xamee tey barke Cheikh la mhm. te dañ naan def chaque vacance bu ñu amee vacance un mois de consultation gratuite ci la kaw la xamee sax luy consultation gratuite bu ñëwee imaam amul clinique ci école bi daara ji dañu arrêté daara ji génne élèves yi daara yi foofu la malaa yi ñëw di fajo ba imaam ni mu jëndee terrain bi tabax ko mu nekk tey clinique si faaw asxam bi nga xam ne tey ñëpp goo xam mi dina bàyyi Kaolack ñu ci bëri bu ñu feebaree ñu ñëw foofu ci barke Cheikh Assane kon œuvre sociale am bi mu ngi ko amee ci liggéeyal gi mu liggéeyal yàlla yàlla tam ubbil ko bunte wërsëg mhm. kon ñi nga xam ne dañu jàng alxuraan boo ko jàngee da nga paat imaam mhm. waqaamu salaat imaam moo daan mhm. la waaw waqimu salaata waqaamu salaat waan fi ko mimmaa razaqnaahum di joxe mu ne man ragalu ma ñàkk su ma amee dinaa génn ci nit ñi su ma ñàkkee itam du ma tëree génn ci nit ñi bu ma amee ku ma ñaan ma may la su ma ñàkkee ku ma ñaan aw ma ma ñaanal la yàlla am na bés bu daw yaram ndeysaan benn papaam nijaayam di mooy papa Cheikh Al Khalifa bi gaañu yàlla na ko yàlla yërëm yàlla yokk leeram damaa ñëw seet ko maa ngi suma ñoom yaay moom imaam ñu waxtaan ñu fekk soxnaam gaañu ñëwoon jaale si ko muy suñu yaay saadatu yàlla na yàlla yokk leeram moom tam ñu waale yaa njabooti yaa yëpp muy Cheikh Mohamed muy taawu imaam muy suñu xalifa tam maa ngi ci bés bu baax di ñaanal jiyaaram mboolem doomu imaam yi mu ne pap pap Cheikh da ko bàyyile benn doomam mm-hmm. moom imaam war a togg reer togg reer nag yóbbul ko fa ak ak ndawal benn waaye ñëw indi ñetti xar ne da koy jaay eh, imaam man li ma ko jox sama àddee mu ngi ma won ne ma loolu rek laa fi yore te waa ji li mu koy laaj mutéewu ko li mu amoon yëpp joxe na ko te tàkkusaan paase na mënoo dem bàkk mu ne ma Abdou doo waxaale kii mu jaay ma xar mi ci làngam après moom bu fekkee suba day ñëw sax ma mun ko mottali nu may waxee bay dem rek su ma benn xari mu àndoon Baye Ndiaye ndeysaan ku baax moom tam yal na yàlla guddal fanam Baye Ndiaye dem di waxaale ba mu di waxaale. ne waa ji xanaa xamoo kii imaam Assane bi nga koy kii doo ko jox xari sax addee waa ji doo ko jox ma ko addee man may jaay nga naa mën naa ko jox addee munoo jox imaam addee munoo ko jox moom imaam ne ma Abdou déggal sa waa ji de mu ngi yàq marché bi waaw kii ni mu waxaale nii kii du ma ko jaay imaam ku munoon tooñ ndeysaan ni ñu waxee rek waa ji gedd ne moom day dem rek benn suñ benn mbokk taali bi suñ sëriñ ñu koy woowee as ay as as doomu alaabulaay alaay papa daam dugg ci biir imaam ne ko ah borom dëkk walaay borom dëkk ñëw nga ñetti xar yi laa bëgg mu ne ko ñaata imaam waxu ko mu génn xaalis fay na ko waaye imaam nag man lii ma fay xar mu ne maa ngi ko jëndee temps mais bu ci ne da nga ciy dolliwaat mu ne ko waaw lu ci mën a am rek baax na xoola ci kaf gém kaf am na xari fayul dara mhm. te mu ngi dimbale nijaayam ñu jël xar bi yóbbu kër Papa ak lu ci aju yëpp mhm. nit ku baax la nit ku tabe mhm. sédd sédd joxe xaalis du benn yoon du ñaar am na benn nit bi imaam gaañoo la ñëw nettali ma Assane Cissé ñu ngi koy ziar ba Assane Cissé Gueye dafa ñëw jàng trondoo imaam la ba mu jàngee pare mu war a dem France mottali ndeysaan amul mu laaj papa mu laaj yaayam mu ànd ak yaayam ñu dem bañ demee moog yaayam ñu gis imam ñu ne ko gat ah imam man ne damaa bëgg a jàng mais aw ma lu ma fay ñaata la cursus bi yëpp mu ne ko nangamu million xaw ma douze million xaw ma dix million daal baatu dix bi daal mu ngi ci mu ne imam génne xaalis bi yëpp jox ne ko waaye ci charte nag fekk maa ngi dund bu ko netteel xam nga loolu moo joxe xalal ci ci lu nëbb mhm. yéema ma wax ci lu feeñ la mais li nëbbul kooku ba mu demee jàng ba ñibbisi ba imaam gaañoo ci la mu doog a nettali li macha allah te yooyu nag ay ñeneen te ñeneen la macha allah ci lu feeñ ñëpp ko xam ci imaam joxe xaalis macha allah cent yu bees billet mille francs yu bees deux mille dollar rek euh, libre seer lañ da ko daan béyee nii dollars yi nii mhm. parce que tellement dafa tabe donc génn xaalisam wante foo koy maa raisonam si ranu alaanati ñi nga xam ne dañuy joxe ci li ñu am ci lu feeñ ak lu nëbbu mhm. mu ne yàlla mun a yar joona tijaaratan lan tabur loolu la ñu ngi def commerce bu nga xam ne duñ perte ñuy jàng alxuraan ñuy julli ñu joxe li am ci lu feeñ ak ci lu nëbb yàlla mun na ñu ngi def commerce bu du perte ñi miin imam bu ma waxee aay bi rek ñoom ñëpp xam ne li ma wax ne ku ci nekk mun nga ci génn dara ni imam def na nangam. macha allah Cheikh eh, may xamal ni temps bi daanaka. ma koy xamal ñu li ñu bëgg a waxtaan si imam yëpp xam naa ne du xaj du ñàkk si koor gi incha allah rabbi ñu yaatal ngeen ñëw ñu gën a waxtaan si imam da ngay tëjee question bi ndax munta ñàkk ndax moo tax ñu xamante mhm. muy sa diggante ak sang barxaamu Njaay mhm. gis nañ ko mu témoignage def la la témoignage bu mhm. rafet si yow waaye tey xam naa ne fii nga ko ko mën a fayee moo tax munta ñàkk nga tëjee question boobu sa diggante ak sang Njaay waaw alhamdulilah rabbi al musfa ñu ngi kontaan baax wax dëgg yàlla foofu la ñu xamante mooy sabab bi sang Njaay suñu xarit la depuis 2010 ba imam gaañoo euh, moom dafa doon def chaque année mu def gël conférence ci ndigalu si kii conférence bi def weeru koor mais fekk Touba yi moo dëkkoon côté yooyu ñu ko daan defee ci marché gël tab foofu la ñu xamante maa ngi ma ñëw su soxna mun a magat amna na daayira bàyyi ña suy def conférence fii ñu ne comme seen sëriñ dafay ñibbi te heure doog dafay jot ñu doon wër ban muxaddam moo fi dëkkee pour ñu ñëw fi doog dem loolu moom booleeg sang Ndiaye mu ñëw ci kër ga dogu moog taalibe ma gis mu koy nettalee waaw mm-hmm. ah, man sax bu koy nettalee damay am ker sax parce que xam nga loolu may gu la yàlla may rek la mm-hmm. bés boobu lañ mës a gisante mm-hmm. kon ci yàlla lañ xamante boobu ba tey ñu ngi demalante ñu ngi diggalante mosumaa gis ku gën a baax sang Ndiaye ku ko gën a tabe ku ko gën a muñ ku ko mën a bëgg doomu aadama ku bëgg sonn ci doomu aadama pour mu jëriñu muy ci am am muy ci xam Sénégal ñu bëri dañu yaakaar côté baatin bi rek la muy côté yàlla ji ne rek mais li muy dimbale ci doomu jàmbur yi mu jàppale bañ tekki ñi muy may alalam tele lañ moo tax doo mën a wax parce que dafay mel ne vie privée jàmbur la mais ñi ma xam mu dimbale leen loolu ku baax rek moo koy def te ku ni nga ko fekkee ci buy nekkee ci gàmm boo fekkee sang njaay këram noonu la mel c'est-à-dire c'est un homme sans façon ni mel la mel da koy bëggee ni mel wala nga bañee ko ni mel ñu nag bëgg nañ ko parce que bàñees moo ñu boole su dul woon bàyyi du ñu xamante. bëgg nañ njabootam yëpp parce que boo am nga koy àndal treize ans parce que deux mille dix ba léegi treize ans la. xasu la xasoo ko sikkoo ko sikkoo ko bu ne la sa xarit nga war xam sama sang njaay sama xarit la. dëgg-dëgg nag saa su xarit. bàyyi gis mu ne xarit mooy ki xam ne mooy ki lay xëccal lu baax di la tegal lu bon mu ne kooku mooy sa xarit. moo tax ñi koy xamul buñ koy déglu di wax man damay reex rek am nañu yaakaar ne. xaalis ñu boole comme xam nga rek jamono ji nit ñi mhm. dañu yaakaar ne ñu xaalis leen boole mhm. fekk yàlla moo ñu boole mhm. ku ñuy partagé lu bari la daf ma jox xalaat ma ko jox xalaat ñuy demalaan dikkalante ngir yàlla parce que ni ko tey ku la gis bi bi maa de yi pare xëy ku ci nekk ak nga bëggal bokk ki nga li nga bokgal ñu bëgg bëggandoo Barça sax ñu ngi supporté Barça ñu bëgg Real ñu ngi supporté Real ñu bëgg Sonko ñu ngi ànd ak Sonko ñu bëgg Macky Sall ñu ngi tarixa bi la ñu liggéey faydu bi la ñuy liggéey imam osa da wax benn wax bu bëgg xam naa ci loolu laay tëjee mhm. mu ne bàñees mu ne toolu lislaam bii mhm. wala toolu tarixa tijaan bii wala faydu bii mu ne dafa yaatu yaatu ba Moustapha mun na xëy suba te yaa ngi fi téye fet te setti bi di liggéey bi mhm. ana yeneen asaatise ñii ñu ngi ciy rettale pourtant même liggéey bi la ñuy liggéey mais tool bi moo yaatu foog nga nekk fii mën a joxe sa xam-xam kay dañ nekk fii joxe sa xam-xam bu boobaa ku ci nekk nag bu fekkee jotoo TFM wala jotoo eh, RTS wala jotoo kii yow Moustapha moo la neex ngay déglu Moustapha bu boobaa Moustapha yàlla may ko buntu li mu a def ci yow jëriñ la ci àdduna wala jëriñ la ci àllaaxira mën ko ci def la preuve émission yi duñ même émission yi mm-hmm. sang Njaay yàllaa ñu mm-hmm. bëgg naa ko ngir yàlla mm-hmm. bëgg naa ngir Cheikh bëgg naa ngir yoon ci àlma waaye ku suufe boppam ba mun a ànd ak ñoom majaara xoola ñoom majaara rek xale yu ndaw lay àndal mhm. bu ñuy takk mu jóg bu ñuy ngénte ñu jóg mhm. suñuy tukki mu am moom ñoom la mhm. te moo ciy gën a dee parce que xaalisam la ciy def te ñëpp a gis résultat am résultat sax njaay dafa rafet ay nit ñu gëmloo yàlla ay tijaan ay jullit xàqan la ñu ngi ko ñaane yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko wér ñu ngi ziaram boole muqadam bàyyi ñu ngi ziaram nga tàggatoo waale waaw ñu ngi ziare waa Medina Baye ñu ngi ziare waa Amérique. di hmm. ziare waa Angleterre. di hmm. ziare waa Mauritanie di jégalu waa itam Chérif Cheikh Yaa Rabbaani waaye format émission moo ko Moussa Ba waxee rek. Hmm. comme dañuy nangu format bi waa borom teg moo tax mu demee noonu. waaye ñu ngi koy nuyu di nuyu Samba Bàcc Thiam àndal di nuyu Pape Cheikh Diatta mi ñu àndal. di nuyu mbooleem daayaru Nasru Ilmi imam Assane Seye suma bos bu Cheikh Alla Diagne bu nekk Amérique bu nekk Côte d'Ivoire mm-hmm. je remercie tout le monde de l'écoute de l'attention et de la présence bi ngeen am yéen ñëpp pour déglu ñu ñu ngi wax aaxiru daxwaana ani alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala baraka xam naa tey itam ñu ngi jëm ci xadara bu Tiwaawan bi mm-hmm. waaw ñu mayal waa Tiwaawan ñu ngi dem ci xadara bi tey oo ñëpp tey ñëw ci xadara bi tey incha allah incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu incha allah mu nekkoon euh, Cheikh Abdou Ndaw di muxaddam si imaam Assane Cissé ngeen dégg a temps bi ñu am moo daal di bëriwut waaye incha allah rabi si koor gi bu soobee yàlla dañ ko yaatal bu baax a baax a baax a baax ndax nit ñi kat jot nañu xam kan mooy imaam Assane Cissé ndax jëf ju baax ji fi defoon jëf ju rafet ji mu fi defoon hmm. waaye waaye di ngeen ko it moom ak digganteem ak ki nga xam ne mooy sang Barxaamu Njaay kooku moom kenn dootuñu wax si moom ndax hmm. chaque jour ñu wax si moom waaye c'est juste a tijj benn parenthèse lañ xamantee man ak moom hmm. mu nekk ku baax ku tedd ku ku ku tabee tamit moom sang Barxaam ñu koy ñaanal moom it gudd fan ak xadra bi yëpp ndax maa ngi gis ñoom Passeman kenn ñu ngi hmm. partagé bu baax baax ñoom président Massel ñoom ñëpp ñu ngi partagé waaye moom mii nekk tamit ku jàmbaare moom si moom waaye xam nañ donte foofu lañ xamee waaye sekk nañ ay teraanga yoo xam ne lu bëri defal nañu ko moo xam si lu bëree lu lépp lañ mën a wax ci télé daal waaye ñu ngi koy ñaanal moom mi tamit gudd fan ak wér ak sërif bi mu àndal moom ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak mbokk taalibe ñu ngi a baax a baax Ousseynou koy siyaare di koy jaajëfal bu moom it maa ngi koy siyaare moom sama soxna bu baax mm-hmm. xanaa dañuy jox jox mu tëjal ñu rek ñu jox leen dig daje ajuma ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh صل يا ربنا وصادم على ما وهو للخلق رغمة وسباء كيف ترقى ركيك الأنبياء يا سماء متى ولا كسماء لم يساءك في أولاق وقد لسنا منك دونهم وسناء إنما مثل صفاتك رنا سكما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فا إن فما ضر إلا أن دوئك الأدواء لك زاد العلوم من آل من قاي من قال آدم الأسماء لم تزل في الدمائر كوني تعطى رلك الأمهات وآباء ما مددت من رزق إلا بشر القوم بك الأنبياء تتبغى بك الأصول وتسمو ربك الياغ بعد الياغ وبدا للودود منك كريم من كريم أباء كرماء نصب تقصب الأولى بقلاء هل ترى نجوم جوزاء حبذا إقد سودتي وفقاري أنت في يتيمة الأسماء ومقياك سمسمين كمديئون أصفرت عنه ليلة القراء ليلة المولد الذي كان لديه لسرور بيوم إيل وزقاء ليلة المولد الذي كان لدي لسرور بيوم إيل ليلة المولد الذي كان لدي لسرور بيوم إيل وتولى بسر القوى في في أنكى ولد المصطفى وقاك الأناء وطدا ديوان كسرى ولولا آية منك ما تدا أن بنا جاءت القوي في دار فردا فتقول برتتان بالتواني وأترقى قوابل أم إيسا ثم آسية أطال النادي وأترقى أملاك ثم تدلى نور كل النجوم لي مفدادي وداتي في دار يوسف أو بحكم والشغل قول جون رجالي نور سمسنا تبزت إن سمسات مصطفى سادات لا مدلالي مرحبا بربي في أطانا مصطفى القلق قد مرساني جاء ذا المبتدا بتات في بإنايات ربنا متآلي وهو مات مسرتي وهو مات نطعين أكرم بزاين رجالي عمل القوم لكنا وجناني وبقار وبادر في الغالي فتبثت أنواره وأنار